wa ala alihi wa saxaabatihi wa ala taabiin wa taabiihim bi ixsaan ila yawmi ddin rabbi ishrax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli gannaaw bu ma waxee ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yëg ngeen ne nit ñi am na ci ñoo xam ne ci quatre heures lañ fi ñëwoon man mii di wax ak yenn cinq cinq kër nangam fi la ma fekk euh, jotaay boobu métti na te dégg nañ lu neex ci xol dégg nañ xam-xam ba pare waaye dafa fekk ne comme programme la soo ko defu mu niru leneen te du loolu moo tax ma ne rek maa ngi dalal xelu Cissé Cissé yi nga xam ne biñ jogonikoo ba léegi ñu ngi xaar ne leen du gudd nañ ñu ñaanal yàlla rek ñu am tawféex bu ko defee ñu mën a continuer ci mbir xam nga tey ni ma bëgg a duggee waxtaan wi mooy dangeen ne jàmm jàmm jooju nag tey pour gàttal ko te mu leer te mu dugg ci xolu ni ñi ñu dégg ko damay junj rek benn junj boo xam ne ñaan la mais ñaan googu tey mooy nekk unwaan xaw moon duñ koy waxee moom mooy junj waxtaan wi naka lay tëddee ñaan googu ñun ñëpp a ngi koy ñaan ci suñ julli yi mooy bi yàlla di yonent bi sallallahu di ñaan yàlla gannaaw julli bu nekk allahumma anta salaamu wa minka salaamu wa ilayka yahudu yàlla yow ci sa bopp yaay jàmm parce que yéen xam ngeen ne bokk na ci turu yàlla yi 99 yi nga xam ne moom lañ yaxal ba euh, assalaamu am na ci salaamu mooy firi jàmm te salaam mooy yàlla kon nag su fekkee ne xawma ma lu lu muy tekki de waaye nag ku bokk ak yàlla tur yaakaar naa ne léegi rek Cheikh di wax na ko suñ la tuddee woon dégg naa bàyyi mu wax ci turandoor Cheikh Ibrahim ne bu bés importance su turandoor mooy bu bés pencee soo tuddoon Muhammad malaaka mi ne yow ñëw rek taxaw annoncé ne yaa Muhammad udxulil janna yaa yaa Muhammad kaay nga dugg aljanna mu ne soo tuddee Muhammad te am fulla da ngay jug rek waaxu jëm aljanna kenn du la téye léegi wax nañ fi ne baatu raximu bi nga fi xam ne mooy firi mbokk bi ko yàlla maanaam buggee wane mbokk ni mu fooree ci moom dafa jël raxmaanu gi nga xam ne mooy tur yàlla dagg ci tur muy raximu waaye daf koo dagg xam nga raximu ak raxmaanu am na tuuti luñu ñu utee am na alif bu fi nekk nekkul fële waaye nag salaabu moom bii firi jàmm noonu lañ ko tëggee amul dara lu ci yokku moom salaamu ci yàlla bi di jàkkaarloog yàlla gannaaw julli bu nekk ne ko yow yàlla yow yaay jàmmi nit ñi yi tamit ak mbindeef yi ci yaw la mën jóge jàmm yi tamit ci yow la mën a ci yow lay dellu loolu lu muy tekki bu waxtaanee tuuti danañ ko nañ jàpp affaire boobu bu ñu waxtaanee tuuti rek danañ gis li tax ma indi affaire boobu waaye nag li ñuy wax yépp dafay tegu ci kaw lumière u ñaari aaya yoo xam ne ñooy lumière yi ñuy niital pour ñu xam allahuma anta salaam wa minka salaam wa ilayka yaudu salaam benn mooy nit dafa war a xam ne képp kuy jullit di déglu alquran di ko jàng dafa war a xam ne yàlla moo waxoon yonent bi ne ko qul lan yusibanaa illa ma kataba lana huwa mawlana wa ala llaahi falyatawakkal waxal nit ñi déclaré ko jàngal leen ko ñu xam ko ci théorie waaye nga dugg ak ñoom bañ dund ko ci seen xol yi ne benn doomi aadama doomi aadama yi yëpp yëpp suñ dajee woon ke yàlla njëkk a bind ba ci ki mujj a bind ñu yéene la dara ñëpp bugg ko pour def la ko jox la ko te yàlla dogalu ko doo ci jot waaye xëy bu nit ñëpp dajaloo ween bugg laa xañ loo xam ne yàlla jox na la ko ba su ba pare dañuy kër këri ay at di ci sonn buñ paree rek gis ne yow danga koo am ba pare ñoom ñu soog a jub xamuñ sax foo dekk loolu mooy aaya boobu nga xam ne bàyyi leen xel ci aaya yooyu waxtaan wi nag du gudd xam nga su ma waxee du gudd ñu bari dañoo faw ne damay damay damay kii waaye léegi léegi tey ma pare rek ngeen ngeen xam ne du ma gudd beneen bi aaya bi ci topp nga xam ne mooy lumière bi mooy laa yusalu amma yafalu wa hum yusalun yàlla moo waxoon ne sama relation ak yéen li ma seq yéen yéen mbindee fii contrat bi ma lii ak yéen mooy man kenn du ma laaj dara lu tax nga def nangam lu tax defoo ko kenn du ma ko laaj lu ma def rek dama ko war a def te dama koo sañ kenn du ma laaj dara waaye yéen nag lu biir ndaw ndaw ndaw ndaw bu ma neexee ma laaj leen ko jàng ngeen ci alxuraan bés penc ci bu xéeféer yi taxawee ba gis seen téere jëf yi ñu ne maa li haazal kitaabi laa yugaadiru saxiiratan wala kabiratan illa ahsaaha wa wajadu maa amilu xaadira wala yazlimu rabbuka ahada e téere bii moo doy waar téere boo xam ne man li ma nekkee woon ci àddina bàyyi wu ci virgule garam place yi ma doon toog di jëw sax lépp indi na ko téere bii moo doy waar mu ne ñu fekk lépp luñ jëfoon mu nekk fa ndax yàlla du tooñ ndax bu la mbugalee ci loo xam ne nii defoo ko tooñ na bu la joxee loo xam ne liggéeyoo ko tooñ na kon nañ jàpp ñaari aay yooyu léegi nag ma tënkal leen wax leen neen jàmm boo ko bëggee xam tem gàtt xam nga mooy lan jàmm ni ko alxuraan misaale dafa mën a nekk dafay nekk garab garab boo bëggoon a am léegi garabu màngo fii wala garabu nangam wala garab gu sax am ker wala garab goo xam ne dafay rafetal mooy def da ngay am jiw jiwu garab ga nga dem seet fa jiw ba gën a baaxee nga ut ko sellal ko ji ko kon jàmm dafa am jiw danaa leen wax jiwu bi léegi garab soo ko jiyee taxawu ko dafay am dafay dafay am euh, dafay dafay am reen reen yooyu mooy tax mu mën a dëgër ngelaw du ko daane yàgg du ko daane dara du ko daane waaye ngel euh, reen yooyu tey mooy tax mu mën a dund mën a li muy lekk mu mën a jël li muy lekk dund su dundee ba pare lan la mooy dafa war a am ay banqaas am ay ay ay ay euh, euh, kii bu bo boobaa lu muy am mooy dafa am beñet naka noonu yi tamit jàmm noonu la jàmm dafa am meñ kii lu ma ko waxee léegi jiw jiwu jàmm laa leen di njëkk a wax léegi xam ngeen jiwu jàmm mooy lan jarul jarul seet sa jarul foog ne lu lu rëy laay wax lu yomb laa lay wax jiwu jàmm mooy nga fexe ba nit ki am jàmm ci boppam moom ci boppam am jàmm ci xolam am jàmm ci xelam ab jàmm ci roxom li ñuy wax salaamu damir nit ki moom ci boppam moo war a nekk élément bi nga xam ne individu bi la ñuy njëkk a jël fexe ba moom muy doxee jàmm di ko dundee bugg jàmm ci boppam xam nga loolu mun naa la ci jox benn misaal bu gàtt rek Amérique xam nga kenn du ko nattaaleeg Sénégal ci alal kenn du ko nattaaleeg Sénégal ci xam kenn du ko nattaaleeg Sénégal ci sécurité jàng ko xam ko am moyens yi walla wala loolu du dëgg Amérique ak Sénégal fan moo ci ëpp crime Amérique ko ëpp fuuf su fekkoon ne problème mu jàng am ay soldats am ay policiers. am xam-xam bi am moyen am technique bi am xereñ gi mooy tax sécurité am kon Amérique moo waroon a ëpp sécurité Sénégal mais Sénégal ko ëpp sécurité fuuf xam nga lu tax Amérique dafa am doom yoo xam ne jàmm nekkul ci seen xol yi nekkul ci seen xol yi waxutuma muy àgg ci seen roxo yi Sénégal nag dafa am doom yoo xam ne ñi ci ëpp jàmm dafa nekk ci seen xol yi nekk ci seen roxo yi xam nga jàmm ju nekk wala mu nekk ci xel sax dana indi jàmm waaye nag jàmm ju dem ba àgg ci roxo nag moom kooku nag foog nga am sëriñ bu mat sëriñ bu la mën a jàpp jàpp ba ne la haa anta war a bokk nga xam ne dootoo gis lu may loolu loolu lu koy màndargaal mooy yàlla dafa wax ci alquran ne même doomi aadama yi nga xam ne bi mu leen wàccee ci kaw suuf sant leen lim leen sant ñu jaamu yàlla ñiy gëm góor góorlu ci mbaax yàlla dafa nettali ne doomi aadama ji dañ koy jëlee ci nafsul ammaaratu bi suuy wa maa ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaaratu bi suuy illa ma rahima rabbi inna rabbi gafurun rahim yàlla mu ne te ki doon wax kan la yàlla ki wax ci làmmiñam mu wax loolu kan la lum mu wax sax d'abord daf ne setaluma sama bopp xam naa ne am naa bakken boo xam ne comme nit ñëpp niñ ko amee te bakken du digle lu baax suñ ko defaru sellal ko fu se ci seytaane la lay jëmee ci xalaat ko rek la lay jëmee man nag fi ma àgg ci niveau di yonant àgg ci xama yonant leer yooyu taxut ma mën a oote ne man mucc naa ci sama bakken bi li may musal ci sama bakkan bi mooy yàlla yërëm ma ki doon wax kan la moo yonant yàlla yusufa ab yonant moo doon wax loolu xam nga bu yonant waxee ne man nangu naa ne oote ma ne setal naa sama bopp ci ci ci ci sama bakkan bi kon yàllaa ngi junj nit ñi ne mucc ci bakken yombut nagam yonent moo mënta taxaw yëkkati loxoom ne mucc ma ci mucc naa ci sama bakken bi kon keneen ku oote ne mucc na ci sa bakken bi da ngay wax rek waaye da ci déggee ne problème bu nit am rek bakken moo ko waaye nag lu lu yonent yàlla yusufa wax ne mooy solution bi illa ma rahima rabbi wala boog koo xam ne dugg na ci yërmande yàlla kon nga déggee ci ne loolu kooku nag nafsul amaratu bi boobu dana dem di jaar ci ay étape ñu di ko defar di ko defar di ko defar ba mu agsi nafsu li yàlla wax ci alquran yaa ayyatuha nafsul mutmainnatu ji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadxuli fi ibadi wa duxuli jannati e yow bakkan bi nga xam ne yow yaa dem nag ba àgg ci ak dal mutmainnatu ba bakkan bu àgg ci dal apaisé am am am équilibre dal yàlla mu ne bakken boobu man dama koy tiitaroo man yàlla mi ko defar maa ko defar ba pare di ko tiitaroo noo koy amee mu ne la irji ila rabbiki dellul ci sa borom bakken munul dal munul am stabilité lu may ci dellu ci boromam wéeru ci moom nga gërëm yàlla wala nga gërëm dogale yàlla yi bu boobaa yàlla gërëm la bu la yàlla gërëmee nag sa mbir yépp tegu mu ne duggal aljanna xaw ma ban aljanna lay wax xaw ma aljanna ba nekk fële gannaaw dee la xaw ma aljanna bi nekk fii avant dee la parce que am na aljanna avant dee ku ko xam xam nga ko ku ko ku mu neex weddi ko mais am nañu ko xam waaw parce que ki fanaan ci kaso gi ak ki fanaan ci climatiseur yi xam na ne bokkuñ bokkuñ affaire ñu bokkuñ waaw procureur léegi da ma nga def ay ay climatiseur ki ay yu neex ak yëpp ay reer yu neex këram moom la ñuy lekk te moom kenn kooku ña nekk ca kaso ba itam moo leen fa yóbbu moo tax léeg-léeg damay wax ne nañ ñaan yàlla di dajeeg yàlla ci melokaane yàlla bi nga xam ne moom la ñu àttan gis nga Cheikh baraam ki xëy suba teel di ut mille dix mil francs far dajeeg ku ko tag dajeeg sang njaay mu jox ko ab ab cent mille wala ab deux cent mille wala ab cinq cent mille kooku yàlla la dajee waaye wallaahi ki génn jakarta bi ne ku tël du defal ko dugal double fracture kooku tamit yàlla la daje du dëgg waaye yàlla mooy xafuuru raxiimu mooy sattaaru mooy rax mooy raxmaanu raxiimu waaye muta mooy mut mutakabbiru mooy jabbaaru mooy mutakabbiru loo ci man waaw ñun nag jabbaaroo mutakabbiru moom moom nañ nañ nay jaarnale rek ñun nañuy dajee gi raxmaanu raxiim ak xafuuroog sattaaroog yooyu ñun moom lañ moom lañ àttal waaye li am solo mooy yàlla bi mu naan bakkan bi duggal aljanna daf ne ko fët xulii ay ibaad yi duggal ci sama biir jaam yi nga ànd ak moom dugg aljanna lu tax waxu ko ne ko yow duggal aljanna loolu man am naa ci dégg-dégg mooy am na bakken bi fu muy ak sell ak maandu ba yàlla gërëm ko buy dem aljanna mën naa yóbbaale ñeneen parce que bakkan bi xas ba ba ba sell moom yàlla waxut ko duggal aljanna waxut ko dugal ci jaam yi pour dugg aljanna déedéet boo ko dugg na aljanna ba pare waaye man li ma ci déggee sama dégg-dégg la nag mën naa am ma jiw waaye li ma bëgg a wax rek mooy nit ki dafay dafay dafay dafay xam yàlla wala mu am ko mu ànd ak ku yàlla dafay xam wala mu ànd ak ku boo melee ni man xamoo Dakar faarox ñi xam Dakar ci sànku rek ngay dëkk xaw ma ko te du ma ànd ak ku ko xam du jur jàmm mukk kon ñu déggee ci ne li ma bëggoon a wax ñëw na mooy jàmm dafa war a am Euh, jiwu jiwu boobu ci xolu nit lay nekk jaar ci ci xeli nit mi lay nekk d'abord ñu jàngal ko théoriquement ne ko jàmm dafa baax nangam nangam démontrel ko wan ko conséquence su jàmm ak conséquence su ñàkk jàmm mu gis ko loolu xel la waaye bu ko xel mi jàppee yi tamit dafa war a dem ci dafa war a dem ci xol bi xol bi bugg jàmm yéene ñëpp jàmm bu ko defee nag foofu sax bu fa jàmmoon am bu fa amee dana dem ba ci nga àgg fi bàyyi doon wax ne man bàyyi Niass àgg naa ci dayoo boo xam ne mënatumaa bañ doomi aadama que mu bugg ma mu ñàkk maa bugg mu teral maag mu ñàkk maa teral man sama maqaama nanguwut ma bañ doomi aadama parce que xam nga lan la damaa jàpp ne doomi aadama mindee fi yàlla la li ma xalaqtu bi yadayya yàlla mu ne waaw yow iblis lu ko yàlla wax naka nga mun a xeebee koo xam ne man yàlla maa ko bind ak samay loxo demal rek nga gis léegi benn société boo buy defar wala benn usine buy defar ay ay ay ay matériel objet defar ba mu baax yow nga xëy rek publier ne bii baaxut dafay lor ni ñi ba ba ba xool nit ñi lay engagé jëlal benn produit rek ci produit gars yi fii même ndox mii rek nga publier ne ndox mi dafa am nangam dafay gaañ ni ñi dafay nangam balaa suba rek nga nekk tribunal ñu indi la ay problème laaj la te nangam nangam lu nekk dañ la ci dugal. waaw kon nag li yàlla bind ci loxoom usine yàlla bi li mu defar nga ne baaxul wala nga xeeb ko nooy def yàlla kon loolu mooy wane ne doomi aadama bi dafa dafa foor ci yàlla waaye pour mu nekk nit dëgg dëgg dëgg élément bu positif bu am njëriñ moom dafa war a fexe ba jàmm nekk ci biiram dégg ngeen oustaz daan nettali ne bàyyi dañoo toog ci mbooloo am ku ñëw ne ko diw dee na diw moomu kat mu ne mooy koo xam ne mooy ki gënoon a sonal bàyyi gën a sonal njabootam gën sonal ay taalibe musiba mu nekk def na leen xam nga ki dem ba amoo looy def lu may jàkkaarloog Serigne mbay Serigne mbay mel mi ngeen xam Baye Mbaye Niass naan ko bu nawet bi wàccee te tëjuma la ci kaso gi lu lu lu lu sama xeet lu raxasoo maa ko naan sëriñ bay na ko man nag li ma lay wax mooy bu nawet bi wàccee te yow suuf warut la man ma xàcc ci tarixa tijaan li ci topp jarta wax di waaw kon ñu ne mu ne ko kooku dee na bàyyi na alhamdulilah ñëpp ne teg mu ne yéen it du ngeen ma laaj suma alhamdulilah gi ñu ne ko déet bàyyi bi jarul laaj ñun xam nañ ko suñ noon boobu nga xam ne lépp lu ñu dal moo ñu ko teg mu ne déedéet yéen fi ngeen toll ak fi ma toll du benn man damay sant yàlla ci lim nekk nekk sama noon lim ma tooñ tooñ lim ma gàllankoor gàllankoor ak lim ma def yëpp ci ay musiba taxut ma ndokk ko bi mu dee taxut ma sawar ci deeyam xam nga ki nga xam ne lu mu la mënti def bu dee doo ko ndokk kooku doo ko rey yow walla sang doo ko rey de te am na ci yoo teg paaka sax waaye daanaka rey nit da rey nit sax te reyoo paaka reyoo koog jaas wal fitnatu ak kon foofu mooy li nga xam ne doomi aadama fa lay àgg pour nekk élément buy indi jàmm loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy lan mooy jiwu bi nga xam ne mooy indi jàmm jiwu bi ci xol lañ koy def ci xol lay ci xel lay jaar ñëw ci xol waaye bu demee ci roxo nag ci lay nekk nag jëmmi jàmm looloo tax nga mun a jàkkaarloo yàlla de ko allahuma anta salaam parce que euh, Cheikh Baram bés boo demoon ba ba ba boo xamoon bàyyi rafetaayam boobu mbaa xam boobu xam nga sëriñ maa yi ci boppam mi Cheikh Maat doon wax léegi mun a nettali dama loo xam ne reelu na mais mais mais lu am njàngat la mu ne bàyyi bi mu génnee àddina ñëpp di yuuxu ku nekk di wax ñi naan xam-xam ba ñi naan tabe ga am na mu ne am na benn soxna soo xam ne euh, Saint-Louis la jógee bi mu wàccee ci oto bi euh, sànni bagage am xam nga lu mu wax wéy sama ndey wéy fu ñu jëlee ci kuy maye cinq cent mille moom looloo ko num tëddati mel ni mel ni mel ni sama mbokki sama mbokki jabar ji séeréer bi biñ ne ko kii mooy sëfóori sëñ bi mu ne ndaw lekk soos kooku noonu moom moom foofu la àgg ci ci ci ci ci mbaax ci tabe ci bugg doomi aadama yi ci yéene leen jàmm kooku boo ko gisee dootoo bugg leneen lu lu lu lu dul jàmm kooku kay bu ko yàlla bu yàlla jëlee mbindeef mu toll noonu ci jëmmi jàmm indi ko ci biir nit ñi kooku boo ko jàkkaarloo moom ne ko yow yaay yow jàmm xaw ma li ma bëgg a wax li ma bëgg a wax xam ngeen ko déet maanaam yàlla li tax ñu koy joxal ne ko yaay jàmm mooy loolu misaal la ci jël indi nit koo xam ne moom ci boppam jëmmi jàmm la joo xam ne dafay jàmmal xol yi jàmmal roxo yi jàmmal xel yi jàmmal leen ci socialement jàmmal leen ci jàngal leen xam-xam bañ bañ yeewu libéré leen liberté boobu mooy jàmm dëgg dëgg dëgg ndagam doomi aadama ma moo man loolu te yàllaa koy tëbb pour mu def loolu kon allahuma anta salaam jàmm jooju nag soqasee ba am muy individu bi beneen étape bi ci topp deuxième étape bi mooy li ñuy wax salaamul bayti nit ki su amee jàmm ci xolam wala mu am ko ci roxoom wala mu am ko ci xelam beneen étape bi mooy dañoo war a fexe ba mu am jàmm ci këram nit bu amul jàmm ci këram xam nga benn euh, yow demoon nga Égypte baraam xam nga benn benn mës nañoo dem ci mu adal boobu jàng fa ba Euh, examen yi di waaj a ñëw bi ñuy def euh, yaakaar naa kii la xaw ma baccalauréat wala wala wala beneen bi BFEM ñëw ki doon jàngal balaaxa dafa amoon dafa sawaroon lool jàngal ñu jàngal ñu jàngal ñu ba kii bi mu defal ñu muraajaa ñu réviser réviser réviser réviser ba ba mu jàpp ne programme bi yëpp ñi yàlla may tawfiq war nañ ko mun a jàpp mu ne leen léegi nag dem leen ngeen toog nag xaar examen yi te ngeen ñaan yàlla waaye nag bu ngeen di ñaan yàlla boole leen ci déglu leen baax de boole leen ci oustaz euh, professeur bi leen di corriger ëllëg bu mu xuloog jabaram xëy ñëw di leen corriger ñun xamuñu woon loolu lan lay tekki gannaaw gi xam nañ ne loolu lu garaaw la dañoo foog ne kii dafay foog waaw mu ne ku xuloog jabaram jabar ji saaga ko ci guddi gi xañ ko jàmm nelawut bu bët set mu ñëw tiim sa kaye yi war koo corriger kooku ñaanal yàlla bu dajee kooku kon nit ki loolu li muy tekki mooy boo amul jàmm ci sa kër mënoo mënoo mënoo yóbbu jàmm ci mbedd mi mënoo koo yóbbu yi tamit mënoo ko jox ay nit loolu moo tax yàlla ci xereñam mu wax ne comme yow bi ngay commencé bugg a tabax kër soxna ngay indi yàlla wax ci jigéen lu rëy wax naa ko keroog ci euh, maasu janq ja keram sa sa ci kii say daandaay da ba ne jarut sax ngay coow di wax lislaam li la wax jigéen ak li la ko defal su fekkee buggoo mu gudd fekkee dangay ngay gëstu taarix gëstul taarix mais soo ko buggee gàttal yaxi alquran a ngi nii wa min ayaatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwaajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum moodatan wa rahmatan yàlla bu ne bokk na ci kéemtaan yi nga xam ne moom laay bakkoo di ko wane ne yàlla asamaan bokk na ci kéemtaan yi suuf bokk na ci kéemtaan yi seen melokaan yu uute ak seen làmmiñ yu uute yi ak seen aada yi waaye bokk na ci tamit bind gi ma bind jigéen te yow góor soo xamoon sa bopp danga xam ne jigéen bi ba koy bind yow yaa ko tax a jóg yow laa ko bind produit la boo xam ne yow yaa tax ñu defar yow la amal njëriñ yow yaa ko war a fonk yow yaa ko war a toppatoo danaa ko doon faral di wax ci sama samay waxtaan ma ne ñun ku ci am oto dañ la koo may wala nga ko jënd ci sa xaalis laajal ñoom sanga ngi nii laajal euh, imaama ngi nii da am koo xam ne bu set bu xëy dana ko raxas léegi léeg ñaari fan semaine ñu yóbbu ko ñu yóbbu ko lavage léegi léeg ñu yóbbu ko entretien muy raxas waaw oto bi moo fort ba tax nga di ko defar wala lan la waaye confort bi mu lay jox noflaay ji mu lay noflaal jàmm ji mu lay jàmmal moo tax yow tamit foog nga toppatoo ko parce que boo ko toppatoo doo am jàmm boo ci amee kilim léegi mu lay seddalal di la seddal ci jamono tàngoor su suñ fële boo toogee ay weer euh, kiiwoo ko mu ne la mën tamit mënatumaa dem dëgg la wala yàlla nag mu ne kon yow sa kilim bi yaa ngi koy entretien sa oto bi yaa ngi koy entretien sa kër gi yaa ngi raxas waaw jigéen jii nag nga xam ne jëmmi jëmmi doomi aadama la joo xam ne maa ko bind ci sama loxo ba pare te yow laa ko bindal lu la ko teree mën a entretien loolu am na lu gën a éloquent ci wax la ne dañ ko war a entretien amut an xalaqa lakum boo ne min anfusikum mooy yow la ci yow la jógee parti la ci yow boo ne min anfus anfasikum mooy place bi gën a tedd ci yow fa laa ko jëlee ndax nit mën naa waxal jigéen lu ëpp loolu mu ne nag li taskunu ilayha lan moo tax ma bindal la ko mooy stabilité bi nga bëggu jàmm ji nga bëggu dal bi nga bëggu amut foo ko mën a amee sëkkiinatu boo demee sëkkën boo ko boo jëlee baatu sëkkën jàllar bi ko sëkkën mooy kër sëkkiinatu mooy dal dégg nga nga gis ne baat boobu la la yàlla jël tuddee ko jigéen mu ne li taskunu ilayha mais mu ne la yow góor jàmm ji ngay wër dalu xel bi ngay wër sa biir mënoo koo am lu may ci ci ci ci sa sa jabar nga ko mën a jëlee wala ci sa yaay nga ko mën a jëlee wala ci sa mag bu jigéen wala sa rakk bu jigéen ci ko mën a jëlee am na jàmm ak dal goo xam ne yàlla mu ne ci jigéen rek laa ko def maanaam mi ngi mel ni kër gi dafa am courant bu bëri am ay installation am nangam yàlla def fi régulateur boo xam ne moom mooy réguler courant bi du ëpp du wàññeeku yàlla mu ne kooku jigéen la mu ne nag bay jaala baynakum mawaddatan wa rahmatan ma def lu tax nag mu ne loolu li koy màndargaal jàmm jooju ak dal li koy mandargaal mooy cofeel ak bëgg ak bëgg kon yaa ci jàppal ne mënoo bëgg sa réew mënoo bëgg sa sëriñ xamoo ne bu njëkk ba su fi anke yu njëkk ya amoon na jamono liir leen boo ñëwaan di tarbiyu ne da nga bëgg a xam yàlla dañ lay laaj ndax am nga jabar noo mel ak sa jabar nga naan ay nangam nangam ñu ne la demal ba jubóog sa jabar xam na ci benn waaye boo xam ne sax dafa ñëw ci sëriñ bu mag ne ko man damaa tarbiyu ba sonn mënuma ak mu ne ko looy def ci kër ga déedéet mu ne ko kaay raxasal ma fii dem demal nga kiyal sa jabar nga nga nettoyal sa jabar di ko raxasal boolam yeeg nangam nangam nettoyal kër gi mu ñëw naan nii naan man awma awma luñ ko balee bu ne ko sa bi bi lu mu jëlee sa sikkiñ mi nga balee ko kër gi bi mu tegee sikkiñam bi ci suuf ci la àgg ci yàlla yonent bi sallallahu mu ne xayrukum xayrukum li ahlihi wa ana xayrukum li ahli fa ana xayrukum mu ne ki gën ci yéen ci góor ñi mooy ki gën ci jabaram kon maa leen gën ndax maa leen gën ci sama jabar jigéen yàlla dana ko waxal loolu muy seeti leneen lu ñu koy waxal leneen lu dul loolu waaye nag da ngay gis ne kon ndekete jàmm pour mu am il faut jigéen ñi ñooy indi jàmm il faut jigéen ñi lañuy defar bañ nekk élément wu jàmm nekk régulateur ku amut yaay ju baax ci kër gi amoo jabar ju baax ci kër gi amoo mag ju baax ju la mun a remplacer yaay yàlla mun na laa tànn de exceptionnellement lay doon waaye jàmm jaaroo ci yoon moo tax yàlla wax li mu wax zuyna linnaasi xubbu shahawaati mina nisaa'i wal baniina wal qana mi mi mi mi mu ne mu ne man am na yoo xam ne man yàlla maa ko taaral ci nit mais bi muy wax jigéen la tàmbale ne jigéen maa ko def muy ab taar muy bànneex man maa koy man man yàlla maa ko def moo tax yonent bi sax ne man suma sunna mooy damay takk jabar di ci ut doom ku dem ba foog ba ba ba buggoo takk jabar suma sunna nga bañ ku bañ suma suma jotee jotee tuma ak yow dara moo tax benn waaye bu yàlla may bu yàlla ñàkkal tawfiq li ko Cheikh Madi di wax ay werante yu xam toog ci télé bi am lu muy wax ñu ne borom xam-xam la naan sëriñ bi sëriñ si lu ñu defee jabar ju rafet waaye yow loo yéene sëriñ si la mooy sa problème ma ne ko yow xamoo li ngay wax parce que sëriñ bi moom rek moo yeroo moo yeroo moo yeyoo jabar ju rafet parce que moom mooy ki nga xam ne war ta xool keneen ku dul moom keneen ku dul jabaram dégg de jabar jooju soo ko amee ay doom ak ak alal ji ngay kër kër rek lépp foofu rek la ja coow li bëri na gaa yi naan ay xaw ma lan ay beneen affaire beeg nangam nangam mais kenn mënul am doom te amoo jabar dégg de kon loolu mooy jàmm ji nga xam ne ci biir kër gi la dama koy tënk parce que boo amee jàmm ak sa jabar rek xam nga keroog maa ngi liir benn rapport boo xam ne sang rapport bu jara bu jara siiwal la américain yi ñoo def ñoo bind rapport boobu saytu ko xam nga seen xam-xam ak seen it ak seen xereñ rapport bi xam nga lu mu wax dañ ko def ci xale yu ndaw yi ñu ne xale yu ndaw yi nga xam ne dundu ñoo seen baay ak seen yaay yi soit seen baay rek moo leen yar wala seen yaay rek moo leen yar ñooñu xale yooyu lu seen yaay góor góorlu wala lu seen bàyyi góor góorlu bi ñu xoolee seen niveau seen niveau intelligence dafay wàññeeku maanaam yeneen xale yi ñoo leen ëpp intelligence waxuñ ne amuñ intelligence de waaye xale boo ci gis lu mu xereñ xereñ bu fekkee ne euh, bu fekk bu fekkee ne yaayam rek la nekkal wala baayam rek la nekkal su nekkoon ak yaayam ak baayam ñu nekk ci jàmm ci la xereñam di gën a di gën a di gën a di gën a mat loolu américains yi ñoo ko wax. France sax su mu ne mu ngi koy topp ba ne ñi nga xam ne seen bàyyi rek moo leen yor wala seen yaay rek moo leen yor loi bi dafay imposer kenn ci ñoom muy jël xale bi di ko yóbbu ci keneen ki de temps en temps pour mu xam ko parce que dañu gis ne loolu dafay wàññi waxuma nag koo xam ne gisul yaayam gisul baayam wala taluñ ko kooku moom kenn kenn kenn werewul néew na nga gis xale boo xam ne ci kanam yaayam ak baayam la yaroo yaayam ak baayam xulóowuñ ci kanamam xeexuñ ci kanam saago antewuñ ci kanamam ñu may ko jàmm yar ko ci jàmm néew na nga gis ko ci mbedd mi muy def yenn yi xanaa ñu jaxase xel mi wala ñu def ko leneen ñu ne dañ koo yàq wala nangam mais néew na néew na kon loolu mooy wane ne nit ki dafay am jàmm ci këram te jàmm ci këram bu ko xasee ba am ak jabaram rek am ko ak doomam yi ay doom bugg doomi jàmm keroog dama koy wax sama jàngalekat yi ma ne leen yéen yéen a ngi nii di jàngale waaye bàyyi leen xel ci ne yéen amul ci benn jàngalekat bu garanti ne moom mooy jël doomam yi surtout ci école bi jàngal leen ba ba ñoom ñëpp ñu am doctorat yow yaa ngi nekk jàngalekat say doom ñu ngi ci yeneen école di jàng ma ne leen ni ngeen bugg ku def seen doom yi nangeen ko def doomi jàmbur yi lebal ko yàlla ci seen doom yi bu ko defee ci doomi jàmbur yi bu ko defee yàlla may yàlla may beneen jàngalekat xol pour mu mën a toppatoo seen i doom mais boo ne samay doom ñu ngi ci école yu baax yi nekkut ci damay fay xaalis di daw jàng di tap di tappalee doo jàngale jàngale bu normal bu sa doom yi amee barke doo xam-xam it xam-xam it barke te xam-xam nag dafa war a barke bu loolu jeexee nag bi ci mujj mooy comme waxoon naa ne war warta gudd te mi ngi bëgg a gudd bi ci mujj mooy boo amee jàmm ci sa xol individuellement ci sa roxo comme ni ma ko waxee nga am jàmm ci sa biir kër man gisoon naa Oustaz Barham gisoon naa benn góor boo xam ne dafa tàng tàng tàng mën naa am sax bëgg lu baax rek la waaye nag dafa dafa li égyptiens yi di wax duxuri awi nii rek nii rek nii rek affaire bi am kii benn bés romb buntu ndekete dafa takk dakaar moom Kaolack la dëkkoon waaye dafa takk seet Dakar mu toog ba ngoon mu départ jëm dakaar ci seet bi bi mu déparé ba ma trent minutes ñu tëgg bool di fecc buñ tëggee bool yi rek xam na góor gi dafa dem ci seetam maanaam bu fi nekkee kenn du am jàmm ci buntu kër gi lay toog ku ñëw mu ne la fooy dugg koy seet nga ne demal yow nangam foo demoon nangam ak nangam meli kii xañ leen jàmm ba xam nga bàyyi joo xam ne su demee ci seetam nga tëgg bool koñ bi yëpp génn bàyyi jooju taxul ñu wax bàyyi waaye dangay fexe ba sa doom yi soo tukkee ñu yàkkamte nga ñëw soo ñëwee ñu gàttandu la soo nekkee ci kër gi moo leen gënal soo fi nekkul waaye bàyyi joo xam ne doom yi nañ nga génn kër gi parce que doo leen may jàmm loolu yi tamit du indi jàmm du indi jàmm léegi nag su loolu amee nag nga am jàmm ci sa xol am ko ci sa dangay mun a nag nekk élément buy indi jàmm ci société ah léegi tey ngeen comprendre li ma bëggoon a wax maanaam yéen jàmm jigéen bugg ci société bi bugg ko ci mbedd mi bugg ko ci réew mi munul am te déparé wut ci individu bi jaarut ci kër gi jaarut ci kër gi waaw bu ko defee nag société boobu dama koy tënk rek moom itamit ci li yonent bi sallallahu wax ne laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axihi maa yuhibbu li société li koy indil jàmm mooy individu bi ni mu buggee boppam buggee jàmm ci boppam ni mu buggee tëdd nelaw ni mu buggee bu xiifee lekk noonu la ko yéenee nit ñi bu nit ñëpp xamee ne ku nekk rek maanaam sama mbokk mii ma nekkal bu ma bu ma bu sama doom di génn du ma tiit parce que xam naa ne du moom moo koy moo koy toroxal du moo koy dóor nangam bu boobaa yow tamit da ngay bugg a mën a jël doomi jàmbur pour mën koo uuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxaat ko wax bu gën a leer masalul muminina fii tawadduhim tawadduhim wa taraxumihim ka masalil jasadil waaxidi istaka minhu udwun te daa lahu saairul jasadi bi sahari wal humma dimbalante bi war a nekk ci société ab jullit ay réew moo xam ne ay mbokk yoo xam ne ay jullit lañ société boo xam ne ay jullit lañ dañoo war a mel ni benn jëmm jëmm ji am na tànk am na bët am na nopp am na baaraam am na bopp am na lu nekk waaye lenn lu ci am problème rek baaraam bi gën a ndaw sax bu amee problème tànk jir nga nga nelaw du mën a am dara du mën a am te pour temps baaraam bi rek kay métti mu ne société jullit noonu la war a mel lépp lu dal kenn rek ñëpp dañoo war a yëg ne dafa war a yëg ne xam nga bàyyi sax daana ko mu ne jullit ñaari mbir rek la mënal mbokkam mu am xewu bànneex ak bésu bànneex nga ñëw bokk kooku moom bànneex bi yow mu am xewu naqar te mënta ñàkk yàlla nañ ci yàlla yàlla yàlla na ko yàlla yéexal mu ne boo ñëwee euh, musiba ba ak jafe-jafe ba daal di oyof Amadou Mahmoud Korso mi mi nga xam ne ku ko xam Seyda xam na ko bu baax bu ko bàyyi lu jeex ci bàyyi jeex bàyyi boo xam ne nañuy nettali dafa mës a am euh, doomam doom ji génn àddina xale bu xale bu ndaw la bàyyi ñëw jaale si mu ne leen mbir am na de ñu ne ah mu ne su fekkee ne bàyyi mu ma kër euh, doom ji dee moo ko fiy dindi te maa ñaan yàlla sama doom yëpp dee ndax bés bu set mu ñëw fi gars yi na ko déet boobu ëpp na di mu ne ah man de man xam naa ne man li mën a xew daal man bàyyi ñëw ñëw ci man daal moom ma gën a lu ne man ak lu ko lu ko mënti indi dëj laag lu mu mënti doon bàyyi ñëw sama kër moom man moom gën a lu ne waaw mu ne kon société jullit mooy société boo xam ne kenn ku nekk yëg na ne lu ko dal ci problème ñëpp jóg taxaw wala danañ ko yërëm wala danañ ko ñaanal wala ñëpp ko danañ ko danañ ko taxaw mu ne wala boog kama salil bunyaani bu ba'duhu dan wala boog ñu mel ni ab tabax seetlu woon ne tabax bi suuf la déparé suuf ay pepp la pepp yu bari moo tax gis naa benn waaye bu ne nombre pepp suuf yi ci kaw suuf mën na ko mën de wax dëgg yàlla sama problème du xam nga ko xamu ko waaye dafa ma amul njëriñ soxla loolu mooy sama problème xam nga nag xale yi alaaj Ibrahima danaa leen di wax ne leen ñaari affaire na ko xale moytu gis nga garab lu mu baax baax baax luñ ko expérimenté expérimenté luñ ci mënti wax ba ba ñëpp xam ne garab gi baax na boo feebarut feebar bi mu faj bu ko naan nit ki lu mu baax baax lu mu rafet rafet boo bokkut moom fu fu ngeen jëm bul ànd ak moom dégg de mu ne kon boo demee sax ci alquran bi muy wax famille daf ne wa fasilatuhu allati tuwi mu ne bés penc danga gis koo xam ne lim gënoon a fonk ci àddina lim gënoon a bugg lim gënoon a itteewoo moom la gën a bañ kim gënoon a bugg moom la gën a bañ a gis ci ci àllaaxira parce que day bañ mu tàddeel ko wala mu di ko fayee fayeeku bor wala mu di ko nangam wala mu di ko laaj loo xam ne boobu moom talu ko mu tudd ci jabar tudd ci doom tudd ci leneen waaye mu ne woo fa si lati lati tuwi maanaam ak sa famille sa sa famille bi nga xam ne ñoo la daan ñoo la daan ñoo la daan iir demal foofu tamit ci baatu baatu iwaawu nga jël ko mu nga jël ko ci mawaa mawaa mooy mooy mooy mooy mooy comme mbaar mi ñu nekk nii mooy néeg mooy mooy mooy xaw ma nu ñu koy waxee ci kii waaye mooy fi nga xam ne soo fi nekkee moo la wër ëmb la ba nga xam ne bu doon naaj la naaj bi du agsi ci yow bu doon taw taw bi du agsi ci yow boo tëddee ñemee nelaw xamoo ne ñun ku judd rek li tax ngay ñemee tëdd mooy da ngay tëdd tëj mu wóor la ne mu ngi la mu ngi la mu ngi la wër kenn du fi dugg ngay nga ci ngay soog nelaw noonu la yàlla misaale ne loolu mooy mbokk loolu mooy demee nag ba nga xam ne famille yëpp noonu la mel dañuy bugg mbokk léegi nga dégg ku naan léegi nit ñi fonkuñ mbokk léegi nit ñi bugguñ mbokk te dëgg la dëgg la àddina bi doy na waar waaye li tax buggoo mbokk lan la est-ce que yow yaa tëb tëb rek tànnoo tànn buggu buggoo mbokk parce que bërki démb dafa am benn waay bu ma oo maa ngi foofu lay taxaw benn waaye bu ma oo ne ma ma nga ma nga Amérique borom wërsëg borom itte lim am yëpp mu ne ma man tabaxoo ma ay étages yu bëri jënduma ay oto yu rafet jënduma nangam maa ngi liggéey maa ngi am maa ngi am lu alal ju bëri waaye ci sama mbokk yi rek laa koy def di leen dimbale rek ku ci am problème man lay xalaat maa ngi dimbale rek maa ngi def lu baax waaye gis nga liñ ma fayee di ma saaga di ma xas di ma sosal di ma liggéey di ma wax lu bon lu ne ma ne ko sëriñ bi mu ne ko santal yàlla mu ne ma hee yow nag problème bu nekk rek leel nga ma ko waaye bi yoon danga maa problème xanaa li sama mbokk Babacar di wax mu ne waa ji saalum saalum bi dafay jooy ñu ne ko bësal sa xol bi mu ne man ci xol lañ ma jam ngeen bëgguma basaat ko boole ci mu ne ko waaye santal yàlla mu ne ma lu tax mu ne ko dama lay wax wax bu gàtt rek sa mbokk yi nga ne noonu lañ mel waaye yow yaa am wërsëg yow la ñuy ñaan mu naa ah, mu ne ko jàllar bi mbir mi nga nga nga am mbokk yu mel noonu ba pare te yaa ñàkk war leen a war leen a war ñu war laa dimbale mu ne ma sëriñ bi noppi li nga bugg a wax xam naa ko maa ngi lay waatal ci yàlla na bis ni ki tey sama mbokk yi ñi ma tooñoo ñëpp baal naa leen te lu ma mën ci ñoom danaa ko def bu loolu amee kon loolu mooy famille bu njëkk ba dañ daan gis ne man Birame Seck mii ci cekkeen laa bokk xam naa ne du ma dee xiif xam naa ne du ma rafle xam naa ne bu jàng jotee am na niveau boo xam ne ku jàng di li sama baay amut xaalis wala sama yaay amut xaalis wala sama maam amut xaalis waaye xam naa ne danaa jàng lu tax parce mbokk gi la man danaa koy faral di wax doonu ma tudd tur waaye tey sax danaa ko gën a leeral pour ngeen xam ne li may wax lu précis la te dañ ko war a bàyyi xel yéen euh, Baye Thiam Ngatta yow xam nga ko papaam Alaaji Abdoulaye Thiam am na jamono boo xam ne képp ku bokk kër ab Abdoulaye Thiam di jeune kenn du xeex ak yow ci Medina góor ak jigéen li may wax lu ma xam la lu ma fekkee la kenn du xeex yow parce que xam nga lu tax boo xeexee kenn ci waa kër ab Thiam di nga xeex ak képp kuy frère am magam ak rakkam di nga xeex ak jigéen ñi di nga xeex ak sët ku dajee yow rek yow yaa xeex ak Baye Thiam song la keneen yow yaa xeex ak Baye Thiam song la da ngay dem ba yàgg nga ne lii lan la ñu ne la kii kenn du xeex ñoom nga baleen moo tax buñ ku la ci tooñ da nga naan hé man mën naa xeex ak benn nit waaye junne nit mënu maa xeex ñoom te bi du jeex képp ku dëkk ci kër gi même ki ñaar ñi nga xam ne duñ wax sax boo xeex ak frère moom dana dajeeg yow provoqué la même jigéen ñi dañu yore seen i yet dajeeg yow song la satoo la dóor la parce que da ngaa xeex ak kenn seen wàkk ñëpp leen bàyyi kenn du xeex ak ñoom ci jamono boobu mais loolu loolu loolu li muy tekki mooy mbokk gi suñ suudee di jàppalante mu wóor la ne kii boo ko laalee ñeseen yëpp jug kii boo ko laalee cekkeen yëpp jug kii boo ko laalee siise yëpp jug ñu def ko nag ci dëgg mooy danañ la protéger ba pare wan nag hey da nga yaa li ngay def ni nag euh, beneen yoon duñ la ci jàppale ah ñun duñ la jàppale ci caay-caay ah man am na benn policier boo ma wax boo wax ne ma Louga moo gën a naqadi liggéeyee en tant que policier ma ne ko du tax mu ne ma Louga mooy dëkk boo xam ne heure boo jàppee nit balaa muy mat deux heures de temps képp ki dëkk bi képp ku kilifa bitim réew di nga jot appel am wala bu fi nekkee mu ñëw taxaw ñëpp di def intervention. loolu loolu mooy affaire bi ñun lii nii ci kii am nañ ci am na ci am na waaye nag nañ xool li ci suñ part de responsabilité parce que léegi li xew mooy individualisme ku nekk dangaa jàpp ne soo jëlee sa doom yóbbu leen ci école bi gën a baax yóbbu daara ji gën a leen ci école bi pare pour yóbbu leen bitim réew na sama doom yi tekki doomi yi jàmbur sama yoon neew ci man alaaji Braham damaa jàppoon ne bi may xale nekkati damaa nekkoon xale damaa jàppoon ne ñàkk jàng problème bi ki jàngut la musibaay ki jàngut la waaye ndekete ki ñàkk a jàng musiba mi du musibaam musibaam société bi la parce que dof du xam ne dafa dof yow gisoo dof yi ni ñu sawaree naaj bi tàng ñu def yaramu leen di cëppi cëppi di ree di fecc li muy ree xamoo ko gisoo yow yaa ko yërëm di tiit waaye moom mi ngi ree kon dof du xam ne dof na waaye xam nga ñàkk jàng problème mu kan la problème mu société bi xam nga misaal bi ma ko daan misaal mooy lan taalal sa oto oto bi baax na jar cinquante millions trente million am nga chauffeur boo xam ne mën naa nekk sax chauffeur président de la dégg de respecté na code de la route am na këyit oto bi am na këyit moom am na këyit respecté na li muy def nga tegu ci kaw tali bi jàkkaarloog juróom fukki nit ñoo xam ne kenn respecté wu ci code de la yow ak ñoom kan moo ci gën a am problème yow yaay am problème yow yow yow mi nu mu moo tax xam-xam dafa dañ xam-xam bi ñuy wax li Cheikh Madi di wax euh, démocratie xaw ma démocratie lan la mu ne maandu mais man maandu mi ngi jugee ci mi ngi gën a nekk ci xam-xam gis nga xam-xam dañ ko war a def comme euh, comme euh, comme oxygène bi ñu nonki la kenn ñëpp dañ dafay sell ñëpp ko am jàmm mu am problème rek ñëpp nokki ko am problème mais kenn mu mënu ko nokki yow kenn ay baram balaa ngay am problème nga jàng xam man ba ma jàngee ba ñibbisi am problème mooy waaw yow de li nga wax baax na waaye yaa wax dëgg waaye yow yaa yaa li nga wax noonu la ma ne hee man fii ma danaa fi mën a neem yaa wax dëgg waaye mooy lan mooy ne dëgg googu waaw teg ko nale parce que am na leneen loo xam ne nii dëgg kon ñun ñoo war a fexe ba ñu démocratiser démocratiser xam-xam parce que ñun ñoo ko def si bopp ndax dañoo xëy songu jàngam arab bi ak jàngam alquran bi naan dañuy yalwaan ak dañuy taxawaaloog dañuy nàngam ak nañ tëj daara yee fi nàngam tëj moo yore waaw xoolal ma résultat wu daara ji ak résultat wu tubaab bi tubaab bi dafa indi ay milliards yi milliards yi milliards yi indi ay expert indi arbe di forcer nit ñi indi ñi gën a xam lu njàngale ak transformer nit ci àddina ñoom lañ indi fii pour Sénégal ne sëriñ si dem leen ne la yéen bokku leen ci comme alquran ngeen kii dem leen fële dem leen xiif demleen leen tumuranke dem leen def yaramu neen dag tànki neen kenn du leen dimbale duñu leen utal professeur yow suñ maam yi jamono jiñ naan xay ngéemantel nga déggu ko yow di reye naan saalum saalum bi ngéemantel la xam nga mooy lan booba amuñ professeur yi nga xam ne moo jógee France ñëw pour jàngal leen naka la ñuy prononcé arab euh, euh, français naka la ñuy prononcé arabe comme ni ko ñuy amee programme bi nekk ci tubaab bi ñi gën a foor ci France ci xam-xam ñoo ko ñoo ko defal ay milliards lañ ci def ay borom xam-xam yu mag taxawal ko ba ne nii lay nit ki def ba dégg français nii lay def ba nekk expert ci lii nii lay def ba nekk expert ci lii suñ maam yi rejeté loolu bëgg a jàng alxuraan te amuñ expert yu leen jàngal amuñ ay amuñ ay école amuñ ay nit ñu jógee fële ñëw pour jàngale ñu am imagination ne xale bi yow comme ci àll bi ngay nekk xam nga till ñu ne mu ne xaa xaa boo ko bëggee xàmmee xaa mooy li niroo gémmiñu till kaalong dégg nga nga foog ne affaire u ree la foog ne saalum saalum bi fekk boobu moom mu ngi koy jàngal ci image moo tax man bañ demee ba ci école yi ba école yi indi image di ko wax mu mel ni lu bees la ma ne leen suñ maam yi ba ñuy jëli image di ko jàngalee xale bi ba mu xàmmee xaraf yi du heure bii nii donc donc loolu moo bi bi loolu amee lan mooy résultat bi Senghor baax na lool jàng na lool ay Abdou Diouf ay nangam nangam ay Aimé Césaire ay xaw ma lan nangam nangam baax nañ lool waaye ndax ñu ñu nit dale leen comparé ak nit ñi nga xam ne ñoom la daara ji génnee Cheikh Ibrahima mi ñu doon waxtaanee léegi daara jee ko génne Cheikh Ahmad Bamba ku ko génnee du daara ji Cheikh El Hadj Malick ko génnee du daara ji boo Cheikh Omar Fouti ku ko génnee du daara ji est-ce que ñooñu nit ñeme naa osé di leen tëkkaleeg ñi ñi jàngee fële kon problème bi xam nga lan la ma tënkal la ko mooy la foofu laa taxaw alaaj Baram mooy la la la la kii waxoon mu am Mahmoud Mousse waxoon dafa romb benn waay mu téye doom ji di ko jàjji naan ko man damaa am suma yaakaar dafa tas ci yow ba ma lay jàngal di fay ci yow xaalis nga jàng ba am diplôme yi nga am am nangam lii taxutoon sa jikko ji nangam yow amaloo ma njëriñ mu ne ko aha xale bi mën naa am tooñ la de waaye yaa gën a tooñ de mu naam ah, mu ne ko man xale bi bi muy nekk xale xamoon naa ko fii de bi nit ñi di jël seen doom yi di ko yóbbu ci Serigne Aliou yow da ngaa xeeboon yaru Serigne Aliou boobu jël ko yóbbu ko ci école bi mu indi la yaru tu euh, jikkoy jikkoy tubaab nga ne lu tax mu indil la jikkoy tubaab yaa ko def de yow dangaa xeeboon daara ji yóbbu ko fële jikkoy tubaab la la indil yaa ko yóbbu woon ci tubaab bi bul ko bul ko bañ léegi nag ma ne la jàmm mooy kon jàmmi monde bi nag moom moom foofu foofu mooy point bu mujj bi kooku moom dafay daal di nekk ne taxaw rek ci wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan yéen doomi aadama yi dee leen jàppalante di dimbalante parce que euh, déggoon naa ñu ne Maam Alaaji ci dundam bu ci mujj dundam bu mu demee ba nekk mag day toog lu yàgg du gis ay njabootam ñu ñëw di ko wax soxla te booba kat lim nekk mag te feebar moo tax ñu yërëm ko waaye nanguwut ko dafa toog yàgg mu oo leen ñu ñëw mu ne leen yéen it bu leen ma def nii lii baaxut de ñu ne ko maam wala bàyyi lu ñu la def mu ne man maay seen sëriñ maay seen kilifa man ngeen yaakaar kon seen soxla yi dee leen ma ko wax yow seetluwu leen bu njëkk ba dangay am sa baay wala nga am sa nijaay nekk moom ci kër gi soo ko du wax soxla daf lay oon defoo ma kilifa nga ne ko maradi taali lu ma def ndax damaa def lu bon mu ne la déedéet parce que mosoo ma wax soxla comme mosoo ma wax kilo soxla mooy defoo mu man yëg naa ñoo xam ne dañuy dem a takki jabar di jéem a góorgóorlu ne dañ cay defal can seen bopp bàyyi ci la leen mere jàpp ne yow defoo ma kilifa mu ne leen bu leen ma def nii xam nga lu tax ñu ne ko déedéet mu ne nit ki soo ko tanee te doo ko dimbale doo ko gënal kenn nit ki soo ko tanee te doo ko dimbale doo ko gënal kenn comme nag euh, am na sax lu ma karbatoon waaye dama koy tëb agsi rek ci fin bi mooy nañ xam ne jàmm yi tamit nit war na koo ut changement nit war na koo bëgg ci bu fekkee ne li nga nekk gërëmoo ko jàpp nga ne war nga koo changer war ngaa def itte pour changer waaye nag lépp nañ ko teg ci xel nañ ko teg ci yoon nañ ko teg ci jàmm parce que amoon na fi jamono am lu ñuy wax rabiul arabi mooy perentant arabe ñëpp jàpp ne buñ effacé mboolem réew mu ci nekk rek jàpp ne président bi fi nekk suñ ko effacé rey ko ray kook njabootam gi génnee ko rek réew mi soppe nit ñi génn ci mbedd bi ñiy taal seen bopp ñiy def nangam def lu nekk ba régime yooyu ñëpp dem lu mu jur ba léegi jëlal ma Irak jëm nañ sa daamu seen bon na nangam nangam karab karab génn nañ ci mbedd mi jaay nañ seen bakkan yi euh, jaay nañ ko américains yi rey nañ ko boobu ak léegi fan la Irak jëm jëlal libi xadaafi mu ñu doon wax nangam nangam xadaafi nii xadaafi nangam lii la ba ñëpp bañ ko jullit ñi sax euh, boobu sawaroon nañ ci rey bañ rey xadaafi léegi lan la fan la libi nekk Syrie am na am na am na am na am na am na am na révolution fan la mujj Égypte mii place Tahrir place bi ñu wax place Tahrir nit ñi dem nañ fa am fa un mois boo xam ne nii nit ñi comme maanaam comme nii la mel place de l'Obélisque fii maanaam ci place bi la ñuy toog pendant un mois kenn du dem fenn fii la ñuy demee fi la ñuy lekkee fi la ñuy defee li ñuy def yëpp toog fa ne ñu fa jógee tant que président ba jógee ba président bi dem anamu sii si mi fa ñëw lim ñeme ci rey euh, Moubarak ñeme wu ko ana Algérie bërki démb bi ñuy dàq euh, wa président bi ba mu daw dem laqatu ji fële nangam nangam nangam anamu ana tennis fi mu ne nii bërki démb maa ngi dégg benn jigéen boo xam ne moom mu déclaré ne te jullit la nee na moo déclaré ne moom mooy njëkk a dekk jigéen ji nga xam dafay am ñaari jëkkër parce que comme góor ñi dañuy am ñaari jëkkër ñoom tamit désormais jigéen ñi dañuy am ñaari jëkkër boo xam ne état bi daf koy nangu moom déclaré na ne am na ñaari jëkkër Tunisie boo ñëwee nag printemps arabe boobu dafa am nag lu ci am solo lu ma ci dégg dama dégg RFI di def benn benn gëstu lan moo tax réewi arab yëpp daanu seen nguur yëpp daanu ba mu des Maroc yàlla nañu yàlla sàmmal nguuru Maroc ñu wax seen gëstu wax seen gëstu wax xam nga lu ñu wax ñu ne Maroc daal li tax mu am jàmm mooy ña nekk dañu leen di tuddee ay shérif di leen askan ne surtout yonent bi lañ loolu la leen nit ñi rusee euh, ba tax daluñ ci seen kaw tubaab yee ko wax de man waxuma ko kon nag su fekkee ne rus sëti yonent bi moo tax Maroc am jàmm ba léegi am naataange réer yeneen arab yëpp tàkk te tubaab yee ko wax kon ñu ni tamit nañu rus sëriñ si walla nañu rus sëriñ si représentant yonent bi sallallahu alayhi boo ñëwee fii ci Afrique ana Congo ana Mali bërki démb Mali gi def nañ génn nañ ci mbedd mi imaam yi bokk ci ana imam Dicko bi nga xam ne moo jiite woon euh, kii bi ba affaire bi soppeeku militaires yi jël nañu affaire bi toog na ko toogal fële résidence surveillée bul génnati bul waxati ana mu fu mujj ana Guinée Bissau ana Tchad ana Soudan bërki démb mi ñuy wax te sëñ bi dem fa def fa liggéey bu réy bu ana Burkina ah Burkina nag foofu lay taxaw Burkina mii nga xam ne Blaise nekkoon na fa ñu di ko jiiñ ne moo rey Thomas Sankara ak nangam nangam mën naa am dëgg la ak li muy bon bon bon bon bon bi ñu fa jëlee blessé gi léegi lan la jur mooy lan la ay nit ñu jógee Nigéria ñëw di seet si Cheikh Ibrahima ci bésu euh, bésu juddoom ñu arrêté oto yi ñëw taxaw ak seen fetal yow wàccal yow wàccal yow wàccal ñu wàcc ñu jël kii rendi ko jël kii fetal ko rendi kële fetal kële ci seen kanam ba pare sànni koor yi ci mbedd mi su fekkee ne révolution pour jëlee fi président wala jëlee fi ndàngam man nag li may wax dama koy wax rek ngir yàlla bu subaa nag kii ne yow da ngaa kii ak kii man waxuma kenn man ànduma kenn mais li may wax dama koy teg nii pour mu nekk nit mën koo jàngat ñu xool loolu bëgguñ mu agsi Sénégal te yàlla bu mu agsi Sénégal Rwanda bërki démb gis nañ ko fi gis nañ fi ay réewu Afrique yu bëri yoo xam ne tas na yàqu na dootu baaxati ba bis pénc kongoo nga ne euh, ana ana suñu waa ji càndum suñ commissaire bu baax bi nekkoon fii moom maa ngi koy oo léegi ma nga kongoo lu ko fa dem mooy Sénégal ñoo yóbbu ay soldats ak Nations ni pour ñu dem uti fa uti fa jàmm di jël seen bakkan yi di ko di ko mettre en danger pour sécuriser réew réewu jàmbur loolu yëpp mu ngi fi xew te loolu yëpp li ko waral mooy lan jàpp ne violence mën naa régler dara violence mënta régler dara du régler dara nañ fexe ba changement di am mais ñi di ko utee ci jàmm lu tax duñ gëmloo nit ñi ne nit mën na fee jóge ci sans armu sans sans violence mais Senghor Abdou Diouf carte ku fi jëlee élection lañ ko dàqee mu dem Ablaye Wade élection ko fi jëlee kon lu tax ñu bugg a def ci suñ bopp yi ne élection mënu fee jëlee dit d'accord ma ci loolu damay wax rek ni ngir yàlla nag lu ma ci góobee garab waaye nag yàlla nañu yàlla musal yàlla ñu yàlla sàmm yàlla na yàlla sàmm Sénégal yàlla na yàlla musal Sénégal yàlla na yàlla leeral Sénégal yàlla na yàlla taxawu Sénégal ba bu ma wax sax ne ñi bugg a indi fitna yàlla leen yàlla dàngam waaye maa ngi ñaan yàlla dëppu leen bañ. indi ci jàmm indi ci beneen façon changement boo xam ne dana am waaye nag bi salaasa bi bi bi bi bi bi àddaala bi xurriya wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu